Oui, c'est vrai que le premier objectif est euh, jot nañ ci des quart de finale je crois que le match de jaay a commencé donc nous devons ñu doon def à à 100 war nañ ko yokk à 200 parce que niveau bi dafay yéeg donc xam nañ li Ça ne sera pas facile mais bon si nous devons ko organiser nous gars yi nous tout notre possible pour mener pour jouer bu baax match quart de finale yi mën qualifier demi-finale Inch'Allah c'est vrai Égypte est euh, euh, nekk équipe équipe eh, mais bon je nañu points yi fi jaar ba eh, match premier quart comme je l'ai toujours dit premier quart-temps tout le temps des métiers. mais je crois que Bambi différence bi tout le temps et je crois que coach bi mi ngi def liggéeyam bu baax pour pour ñu mën pour ñu mën a génn troisième quart-temps deuxième quart-temps mën gagner match dem ba jeex rek duñu bayyi duñu bayyi hein parce que pour nga yegg final il faut nga jaar quart de finale jaar demi-finale mais bon duñu xalaat ni quart duñu xalaat demi-finale duñu ñu xalaat finale quart de finale d'abord avant tout concentré wu ci mën ko gagner pour mën passer benen étape.